député Abdou Bara Mbacké Dolly moom bëggoon naa nag mu nekk fii comme ça man koo tontu mais malheureusement moom ah day sànnee xeeram rek wax lu ko neex sos ay sosam dem yoonam te kilifa wala sëriñ du wax loo maîtriser wul wala ngay wax loo xam ne ah, buñ demee ba ca biir dañu xam ne li nga dara ci dëkk et puis booy politique da saf yàpp wala nga saf jën da am foo bokk am foo ancré mais koo fenn foo xam ne man koo xam bu tey yaa ngi ci bu tey yaa nit da war a moytu ah, man amul fenn waroon na fee nekk nag ba dégg gis ma koy wax parce que man amul fenn ab rapport ci Sénégal fenn foo xam ne da bëgg ñu bind ba sama tur wala ñu épinglé ma mun ta am nit laa nag dañ maa dénk ay ressources publiques ressources publiques ku ñu ko dénk daan la càmbar xool noo ko yore ak noo ko yore mais man sama gannaaw bandang du ngeen gis fenn fu ko bind wala dara li ñëw li amoon ci Covid bi yaakaar naa ne ministre des jaar na ci jaaraat ci déjà Covid bi sax ñuy defar masque yi unité de production de masque amul woon ci Sénégal unité de production monsieur euh, le ministre moom may cinq mille laa leen may de ministre des finances euh, bi ñuy produire masque yi industrie sax waru a woon na dana war a produire masque yi d'une manière artisanale ñoom ci boppam artisan yi mënuñu koo defar nee na te fay ñu leen à l'avance parce que amuñu mooy ba pare day yeex sax suñu dañ nañ ko produire de manière industrielle à l'échelle industrielle ñu jël ko nañ ko produit bi ñu koy def dañoo woote réunion woo industriel yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy produire des masques NSTS bu Thiès ma nga ca euh, euh, boo demee jam tout ce qui industrie yëpp nga xam ne day dox ci affaire industrialisation textile ñu jël leen ñoom ñëpp andi leen ci ministère bi waxtaan ak ñoom booba masque yi bii coûté ay ay 800 francs ki ay ay ay 1000 francs masque yi ñu waxtaan ak ñoom ba ñu d'accord ne masque yi 400 francs CFA la ñu ne ñoom duñu accepté ñu leen di fay y avait y avait un comité de fonds force covid du ñu accepté mukk ñu leen di xaalis ñu leen di ay chèques ñuy xaar parce que amuñu mooy boobu élastique amul ci marché bi tissu euh, manqué na bi ku sa ku sa mbokk sax faatu da nga koy seexloo jege wala nga koy seexloo daw yaa ngay daw nooy rëccee kon tey mu neex si mën ngaa taxaw wax way fonds force covid tout ça ñu ñëwee ñun on était exempté du code des marchés publics mënoon nañoo bañ a def document ñu ñëw rek ñu teere ñoom dem mais defuñu dañoo ñëw ñu ñu seeni facteur euh, facture performant ñu defar ay contrat defar lépp ba mu leer nañ ñu ñëw ñu jox leen avance ñun avancé ñëw andi seen i seen i masque ñu fay leen seen xaalis indi seen boo de livraison mu jeex takk tey boo demee ci enquête yi boo xoolee ñun enquête ñëpp boo ci laaj amu ci kenn ku lay xam ne jublu xaalis yëpp laaj nañ leen ñëpp ngeen jëndal seen xaalis ñu jëndal seen masque est ce que jox ngeen jox ngeen ministre de l' industrie xaalis génn ngeen loo xam ne tey war nañ koo topp kenn koo xam ne ñu ngi de l' industrie bien vrai que nag man kenn cité ma ci un rapport mais man j'endosse tout ce que ministère de l'industrie fait am ma ci lu ma ci làq wala lu ma ciy daw donc dossier mi ngi justice à justice à la de de de de de régler les choses loolu man am ma ci benn benn benn kii mais daal li ma leer ba leer ma mooy kenn du ma toppee dara ci réew loolu leer na ma li ci des